macha allah hmm? ah macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yàlla mi ñu may koor gi dimbale ñu ñu góorgóorlu ci suñu kemb kàttan waxuñ ne li war a def yëpp def nañ ko ndax ay nit rek lañ dañuy juum ak ñuy def muy mag ñuy def muy màkk a mat muy ñuy màggam ñuy waaye yàlla mi nga xam ne moom moom yëpp yàlla ñu yàlla mottali suñu yëpp ci ngëneelam ci mbaaxam yal nañu yàlla yëkkati yal nañu yàlla dolli te bañ ñoo wàññi yal nañu yàlla sagal te bañ a xotti suñ sutura yal nañu yàlla méngoo ci zahir ak ci baatin yal na yàlla taxawuñu taxawaay bu taxawaay taxawaayu ndimbal taxawaayu yërëm taxawaayu am ngërmandeem fii ci àddina ak ëllëg ci àllaaxira lii rek lay jullit am nit yëpp itam lii rek la ñu am ñu def ko ñàkk ko def rek moo fi nekk ñi koy def ñi nangul yàlla lim santaane yëpp ñu góor góorgóorlu yàlla nee na man tamit nangul naa leen ndax gis ngeen laaya yi njàng bërki démb ba yëpp tagg jullit ñi rek la tagg jullit ñi ak seen melokaan yi kawee rek la bon ku lay tagg nangul na la li ngay def moom moomu ñuy tagg nag xam na suñu manki manki bu baax a baax waaye teg na ko fële feeñal li nga xam ne moo gën a rafet ñun te moom lañ yaakaar ëllëg duggee ci aljanna yàlla nañu ko yàlla dëggalal boole na ci bokk na ci jotaay yu mel nii daje jàngal xuraan am na gaa ñoo xam ne buñ ko gisee dañuy wax ne bidaa la waaye dëgg-dëgg euh, yonente sallallahu alayhi wa mu ngi sant mu ne dee leen tudd yàlla ci mbir mu nekk def naa xadis la xadis la sax dee leen tudd yàlla waxtu wu nekk ak ci mbir mu nekk te defe naa tudd yàlla amul ci lu gën a kawe jàng alxuraan hmm? moo gën a kawe ci façon tudd yàlla yëpp donc woon bu ñuy dajee di jàng alxuraan dañuy daje pour tudd dañuy daje pour nemmeeku kàttan yi nga xam ne yàlla am na ko te yëpp mu ñu bëri mu génnee ñu ko ci alxuraan ñu xam ko ndax bu ñu ko xamee ñun ñëpp mën a ànd te yàlla tax ñu ànd ñun ñëpp ñu mën a dimbalante te yàlla tax ñu dimbalante loolu yépp yàlla def ko bind may ñu ko su weeru koor yu jotee nag weeru ku nekk ci ñun di jéem a góorgóorlu pour dugg ci weeru koor wi ak gëm yàlla génn ci weeru koor wi ak dooleeku gëm yàlla li li ñu koy may nag mooy ñaan yi ñu ngi ci ñu ci jumaa yi di ñaan ñu ngi ci jumaa yi di julli ñu ngi ci jumaa yi di sikkat ñu ngi ci jumaa yi di istixfaar loolu yëpp ñu koy def ngir génne ci weeru koor wi ngërmande yàlla ak jéggale yàlla ak yàlla dolli ñu gëm yàlla yàlla dool ñu jege jege yàlla nañu yàlla defal loolu tëjee nañ wax naa suñ bis yi nañ ko tëjee ko tëjee kaamel ah ndax mu nekk xosnal xaatima nekkal ñu seede yow ma la yenfa'u maalun wala banuun illa man ataa Allaha bi qalbin saliim sàkkoo ne dañuy def bidaa yooyu waxi waxi waxi waxi du waxi dara sax defuñ bidaa tooñuñ kenn jotewuñoo kenn dara euh, li nga xam ne ay njàngalee diine la rek ci lañ nekk di ko jéem a euh, def waaye sosuñ dara jëlee ko ci biti diine yow dugal ko ci diine amut sosuñ dara jëlee ko ci biti tariqa bi dugal ko ci biir tariqa bi amut ay jaamu yàlla rek lay kese kese te jàmm yàlla mooy ku ñàkk kattan ko ku ñàkk doole kooku koo xam ne li koy may doole li ko may kattan yëpp mooy dellu ci boromam hmm? mooy dellu ci boromam booy dellu ci sa borom nag lim la wax ne delloo si ko ci man loolu ki ngay delloo udoo nii astajib lakum udoo nii astajib lakum bu ko defee dañuy ñaan yàlla rek ñaan yàlla rek la ñaan ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul yàlla nañu yàlla may ki yées ci mbindeef yàlla yi mooy iblis ñaan na yàlla yàlla may ko ñan na yàlla yàlla may ko bon nag ku tane iblis nag mun naa am itam boo ñaanee yàlla yàlla may la yàlla nañu yàlla may barke koor ñuy génn yàlla may dara jaay gëm yàllaay koor yàlla nañu yàlla may nangu nangu nangul yàlla nangul yonentam nangul nit ñi nga xam ne ñu ñuy xëcc yóbbu ñu ci yoonu yiw ak yoonu mbaax yal nañu yàlla may ñu nangul leen yal nañu yàlla dimbale ñu am kattanu nangul leen ndax itam nit lum amul rek na xam ne yàllaa ko ko xañ keneen xañu ko boo nangoo yàlla la ko may boo nanguwul yàlla la xañ may waaye nit amul volonté kattan bu mu amee volonté ne maa def lii am ko ko wax itam da tiitalu rek mais xam nga ne amoo ko hmm? xam nga ne amoo ko mënoo ko yàlla rek mën yàlla moom nag def na ñaan leen ma ma may leen bon li ñu soxla yëpp dañ ko ñaan yàlla soxla nañ jàmm ci suñu Sénégal yi ak ci àddina bi yëpp ndax àddina bi yëpp a fees ak yiw ak jàmm suñu Sénégal gi yàlla na ko ci ay yi nga xam ne ñu ngi wëndeelu suñu Sénégal gi yàlla na ko yàlla taxaw ak ay doomam yàlla yàlla barkeel ay doomam yal na yàlla barkeel Sénégal ci ay doomam yal na yàlla yëkkati Sénégal ci ay doomam yal na Sénégal yëkkatiku ci ay doomam yal na yàlla may ñu am-am yal na yàlla may ñu xam-xam yal na yàlla may ñu kàttan yal na yàlla may ñu ñu mën a ñu mën a tàllal mbalaanu buggante mbalaanu soppante mbalaanu dimbalante ngir yàlla yàlla nañu yàlla may euh, kóllëre gi nga xam ne teg na koy suñu te mooy nañ sàmm senegal ndax moo ñu ko dénk ah te dañuy dem bàyyi ko fi yàlla mi ko moom moo koy téye waaye yàlla moo ñu ko dénk teg ko suñu baat ne nañ ko sàmm bon nag ku nekk na nga yaakaar ne boo ko defee Sénégal doolee ko nekk ci hmm? su fekkee ni ngay ni nga gisee ni nga gisee ni nga gisee ni mooy baaxal nekk ci ñi ñeneen ñi nekk ci leneen itam bu leen wax ne waxu leen dëgg waaye ñun ñëpp lu baax rek la ñuy wut ñëpp lu baax lañ bëgg lu baax la ñuy wut lu baax lañ yaakaar ñun nag daara ñaan lañ gën a yaakaar ñu ngi ñaan yàlla ñaan yàlla doonul ne da ngay wax yàlla def da ngay ñaan rek yow ñaanal rek ah? yàlla nee na ba ma ñaanee dina la may waaye sa ñaan taxut du nekk soppeeku fekkoon dañ ñaan dina soppi lu nekk ba lu nekk soppeeku waaye du loolu du ñu tax a bàyyi ñaan ndax yàlla ñu wax ne ñaan leen ma neen leen udoo nii udoo nii ah la lakum kañ la ñuy tontu fii la ñuy tontoo léegi la ñuy tontu suba la ñuy tontu gannaaw suba la ñuy tontu àllaaxira la ñuy tontu waaye gannaaw moom wax na boppam ne la lakum ala bokk nañu danañu danañu nangu danañu nangu ah ba ñu koy ñaan yal nañu nangul yiw wépp ñaan pour Sénégal ci koor gi yal na ko fi yàlla bind ñu ngi koy ñaan lépp lu ñu ragal ci ay xay ak kii ak yal na yal na ci yàlla musal Sénégal ak sénégalais yi yal na yàlla génne Sénégal jàmm yal na fi génne wërsëg yal na fi génne am-am am-am nag dëgg-dëgg mi ngi fi waaye liggéey nag moo koy génne boo liggéeyee rek yàlla may la waaye boo liggéeyul nag dëgg-dëgg da ngay bëri da ngay jàmbatu rek te li ngay jàmbatu xam nga ne yaa ko def sa bopp pour dindi ko il faut il faut ñu jëm liggéey. il faut ñu dem ci tool yi bay fekkee mbay lañu am ñi am yeneen liggéey itam yoo xam ne ñu ngi koy génnee seen wërsëg commerce commerce ñu ngi jaay ñu ngi jënd ñi ngi def liggéeyi euh, manuel ah, yooyu yëpp liggéey la ah ku nekk li ngay li nga nekk di ko liggéeyee bu ko xeeb ndax loolu moo lay dolli. loolu moo lay dolli loolu moo lay yëkkati yal ñu yàlla may ah, yal nañu yàlla may nangu yal nañu yàlla may ñu mën a nangu yàlla may buñ bañ kenn. muy xeex kenn si yoon nekkul ci kenn ci lim nekk yal na ko ko yàlla sàmmal loolu rek la ñu am bisimilah xel yal na ñu yàlla nangu suñu bu dee nag ngeen fàttali ma maa ngi am ci wa ida balaxal atfaalu minkumul hulum